mboolem murid yi déglu leen ma yaalaan ci biir Seex Anta bu leen nelaween mboolem murid yi déglu leen déglu leen ma yaalaan ci biir Seex Anta bu leen nelaween Ah, bisimilah mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen jaajëfal bu ngeen gisee suñu teewaay fii ngeen xam ne ñoo ñaan suñu borom yàggal ko fii ba lépp lu mu yéene liggéeyal maam ja yàlla may fi kawe jotam noonu lañ koy ñaanalee xalifa daaru salaam bi ngeen ne moo di bis bi nga xamante ni moom la ci dëkk bu sell bi ci raqam ji di maam Anta cité borom Daaru Salaam moom la ñuy fàttaliku tey le 30 juillet 2021 di atum 1442 kon bu ko defee rek na ngeen ñu daal top topp ñu fas yéene leen jëlal bépp ambiance boo xam ne am na ci dëkk bu sell bi di Daaru Salaam leen koy defalee tamit ay ziar bàyyi fenn kon ngeen ànd seen seen bii di Sénégal ngeen fas yéene koo topp ci ay ziar yu bëree bëree bëri duñu bàyyi dara du li may gëlëm gëlëm du teema woote amaana kuy nelaw nelawlu ngir réer waaye bu defee yite dootul yandoor bu leen di fàtte yàlla ak dogal yaa ak atta yaa sañ-sañ ya ak mbugal yaa kattan bu ànd ak coono bareem ca lay jëf loo gis ma xew mindeef manul sañul lëf dogal bu am day la kooki xew-xew ngir kun gisul war naa sama teewaay mooy rafetlu bis bi rek nekk taalibe maam Cheikh Anta baax taalibe suñu askere it siyaar suñu askere baax yàlla yërëm ko yëg yëgal ay bakkaram xare ko aljanna ci barke sëñ Tuubaa ku fi ñëw yàlla fa saaju baax jërë ngeen jëf màggal gi daal moom woote nañ ko waaye wuusi nañ ko niñ ko daan wuusee waaw ñuy siyaare ñëpp yal na yàlla nangu ñaan yi nangu lépp liñ fi ñaan ren kay moom mel na nam daan mel ci ñaari at yi daaw moom kenn ñëwul me ren moom nañ ko wootee moom macha allah nañ woote nañ waaye nit ñi wuy si nañ yal na yàlla nangu lépp tañ fekk ko déwén yu bari. kun gisul war naa la ko ke saw saw te yàlla doo ko gis ba xam la muy def loo xaji xaji bur bi lay yaf ka gën a xaji a gis na toom yaay ka gën a jege pey baay gën a gis tiisam yaa te yàlla kat xar balay musibaay ngir dara jaal ko mbaate muy ku baal te yàlla kat xarit si baal ngir dara jaal ko mbaal salaam mooy salaamaaleykum mooy buntu Tuuba mu ubbi màggal yëpp yëpp yëpp yëpp màggal Daaru Salaam moo ko ubbi muy bi muy bisam nga nekk gi nga xam ne gii si la Serigne Touba ñu bisee woon ci géej gi baax ci xante doo ko ci ganale mooy bis bii di bis bu màgg a màgg a màgg dara fonk bi bi ku fa ci taxaw rek daanaka sa aju faj na àdduna àllaaxira. incha allah barke Serigne Touba. maa nga bàyyi ko Njaarim. Njaarim eh? bi rek moo ko waral. te bis bi rek moo ma ñëw fii léegi nit ñi bisi naa sax maa ngi daaru daaru mar naan daaru mar waaye nag bis bi moom ko yóbbu xam ne moom màgg yëpp bi na ba noppi bii bis moom gëj na fee am bu ku yëpp murid murid yeeg taalibe yeeg tijaan yeeg laay yi ñëpp la daal mbas mi jeex na tag barke Serigne Touba. man de bis bi rek kama ñor moo ma tax a jog maa ngi dëkk daa Touba Daaru Marnaan fu ñuy wax baraba terrasse kër sëñ Ibra Gaye waaye màggal gi day wax dëgg yàlla nit ñi yéeme na te noo ngi ñaan at mu ne yàlla nay gën a yok dañ may ñu wér ak fekke ak tal ci barke Serigne Touba barke maam Cheikh Anta ah. yii daaw daaw de moom wax dëgg yàlla teewul euh, euh, waxuñu keneen waaye. ku ñëw tamit teeru nañ la teral nañ da fekk ma am ay teq-teq ñëw waaye ñi ñëw ñi ñëwoon ak doon dégg euh, ndigal ñu koy wax ñu ne ñoom ku ñëw teeru nañ la teral nañ la mel na nam daan mel woowuñu kenn nag ndax ndigal li waaye ku ñëw teeru nañ la teral nañ la bàkk sëñ Tuubaa moo tax tey jii ma bàyyi may def ñëw damaa jubal si ci barab bi siyaare door a dem wër kër mbokk yi ñëwoon fi rek doon siyaar rek doon màggal gi moom kenn ku nekk xam na ne fu mu nekk foo nekk rek il faut di nga ñëw si siyaare si maam Cheikh Anta ndax bis bi dafa màgg torop ci yoonu murit bis bi dafa màgg torop ak la dafa màgg torop ci yoonu murit wax dëgg yàlla ñoo ngi siyaar bu baax a baax man maa ngi bàyyeekoo Touba fii yoon daaru waaw ah màggalu daaw moom xaw naa doy waar waaye ci suñ kër yi nag lañ ko doon defee doon wàccee kaamil di sant yàlla daal bu baax sant Seexul Xadim di sant rakkam ji maam Seex Anta waaw yal nañ ko teewe ay déwén déwén rek. ñoom ñoo ngi nuyu mbooloo mi ñëpp kenn ku ne ci sa tur ak sant waaw ñun danoo màggal si woon Daaru Salaam ñun waa Daaru Salaam lan waa Kër Sëñ Abdi Mbacke caytu waaw mais ñoo ngi nuyu ñëpp di leen saa di ñaanal ñëpp ci màggal bi caytu Diop dëkk bu naa caytu Diop waaw. waaw daaw sant yàlla rek ñun daal màggal gi yokkute rek lañ ciy gis. waaw ñun waa Daaru daal ca kaw ca kanam ñoo ngi sant bu baax waaw di ñaan yàlla képp ku fi ñëw ren yal nga fi ñëw déwén lépp lu fi waay ñaan yal na ko yàlla nangu ci barke borom gaawaan waaw noonu daal leen gis a màggal bi jërëjëf sant nañ leen bu baax gërëm leen. la daal ko mbaate muy ko baal te yàlla kat far ba lay musibaal ngir dara jaal ko mbaate muy ko baal la yàlla joxar ba ci ma te mënu ko jëf na tu lañ koy xayma te balaa laa wóolu ba la mbir yaa nga muñanam ba aw ca tànki mbër yaa la nabluwaanakum li saabiriina xasiba naasu li kaasibiina moom la ñu waxoon yonent ya ak labdaal ya ak xuddu ya ak wàllu ya ak lawtaar waxaala xudbu lawli yaayil mbakiyu رضي رضي عنه لا والمكاي وفي الحديث إن أحب الله ومن دعاء من بتبت له فحيث ما يسب الاستباح وحيث ما جار تداس صفاو أهل البلاء ليس له ميزان وليس ينصر حمد ديوان دقل مراخلا ردلون ينبيا ak saxaaba ya ak waliya xajam ya déggul mu wax la la daloon yoneen ya ak saxaaba ya ak waliya xajam ya soo xalamee mbir yi amoon ca baawan mbirum sëñ gaawaan woyof si baatin soo xalamee mbir yi amoon ca baawan mbirum sëñ gaawaan woyof si baatin mbirum sëriñ gaawaan yëf ci baatin sëriñ Musaa mbirum sëriñ gaawaan yëf ci baatin seetal borom mën nga ñu na aaya ba seex yaa ko daa xëccoo di wan ne koo baax te teewu koo sant di wax alhamdu moo tax ba yàlla naa ko ni alhamdu seetal ma teen ñu boole ko gaynde ya yewu ci teen gaynde ya fàdd mar yaram wa muy ree ñu far ko jàngal saar ya rab yay waare yaxyaa na tomba dootu am ci Sénégal noonu yaa ko jàpp xar jëmam ja yaari gaal muy bëgg a wax yàlla yëbal jibriilu ni ko sune i dootu doon marsool soo xalamee maam sunu ibrahima bam laata am xalilan ak xalima noona mi gën nañ ko muy bay feela ba yàlla rendiloo ko ismaila ñu dellu ko taalal mbëndum nam ruusa def ko ca biir yàlla saral salam sa seetal ma yéen bañu naa yankooba seetal ma yeneen bañu naa yankooba gumba na ay at di polam tunne ba da daa si mbooy rangooñ da daa si mbooy rangooñ gannaawu yuusufa sanko ufum jekke si xooya asafa soo xalamee yuusufa ak mbokkam yaa dootoo dellu xalam soomba dellu xalam soomba ak tuumaam yaa dootoo ragal ku dil ilaayi naasi doo yoxee xeeti ngir pexem xanaasi na tub julit da yokk ay ma xaama mbaa muy sipi ñaawte bi simi xiyaama nu tub julit ba yokk ay maqaama mbaa muy sipi ñaaw te bu sul xiyaama na tub julit da yokk ay maqaama mbaa muy sipi ñaaw te bu sul xiyaama na tooni kerkeraanu lawliyaay ku weddi laajal xayrul anbiyaay mus nañ ko génne Muhammad Rasulullah mus nañ ko génne mu dem ba najaraan ñu di ko sànni doj ku naa day jabaraan noon yaa ko makka ngir bañ diine bis ni rabi la dem Madina fanaan na ci mu xunti fanaan ci ay doj ànd ak lu nekk ñuy daj fab nañ ko tabal ko ci biiru sarwaan jox nañ ko tooke teew ko day kimaan keroog la yàlla wàcce saaru naasi ak falaxi moo ca ko xayru naasi bisub karaat la yàlla daali kéefër yëkkati lislaam loolu doy na doy na tiitar karaat la yàlla daali kéefër yëkkati lislaam loolu doy na tiitar karaat la yàlla daali kéefër yëkkati lislaam loolu doy na tiitar loolu doy na tiitar yëkkati lislaam loolu doy na tiitar yëkkati lislaam loolu doy na tiitar yëkkati lislaam loolu doy na tiitar yëkkati xanaa du moo di sijil mu'miniin wa jannatul kaafir ñii ñaar duñ mane dogal bu am yàlla ko def xam na di ay di yiw soo gërëmul gërëm na seetal saxaaba ya gannaaw yeneen ba wëree fu ku xamul baatin ba am na ci mbir yoo xam ni làmmiñ du ko laal am na ci yoo xam ni def na ko misaal foo jabal imsaaku amaas yara waaye naa la fi musal fee na ku xamul arab na ku xamul yaaram mu dalli ko waar ku xamul yaaram mu dalli ko waar ku mën arab na seeti nuurul absaar gannaaw rasuulullaay gannaaw rasuulullaay gannaaw rasuulullaay gannaaw rasuulullaay ak siddiixu lañ rendi usmaan gannaaw rasuulullaay ak siddiixu lañ rendi usmaan dellu jëm faaroox lañ rendi usmaan dellu jëm faaroox rey nañ ko tuumaal nañ ko jàpp marwaan ma sooki mbir ya déglu leen yéen gaawaan ma sooki mbir ya déglu leen yéen gaawaan gaw nañu kër ga arba'iina yawma wuti sanatan li doy na fecc war ma kenn mus la gis nañ rey Abdoulaye dañ ko talab dog bopp ba na laay yawmal jamal toj nañu gutub càmmooñ ba bis ba ca des mu toj batum nday joor ba muhammadum ababakar siddiixu rayin wa jar na waaju nekk yooxu ray nañ ko wat ko sanni cib santaare taxan jafal boole ko ximaar axon liyu ay dara ma doon jambaar ja abul seynu wal xasan yaakaar ja bañam ya ray nañ ko jëraayu koofa ngir weddi yàlla daañu rab ko foofa fu muy julee fajar la ibnu mal jam fa jaasi ko dal di koy jam fu muy fajar la ibnu mal jam fa jaasi ko dal koy jam seetal xuseynu yóbbu ansuur aa ah, ah, lañ ko rey ci réew Karbala aa ah, noonu yaa yor baba gannaaw bu dee naa la meñ wa naa sa yaxlamu la